ko baax kaat mel ne ne na ca yam ka bëgg lu baax ak ka bëgg safaan na ca yam kenn koo xam ne la nga ci bëgg lépp lépp danga ca jot amul ci àdduna yàlla dogalul loolu waaye mu ne doylu nag mooy loo xam ne moom dalay jariñ jariñ lu mel ni am nga lépp ndax li tax mooy lépp li nga am day tax nga bëgg ko te gis nga loo am soo ko doyloo te bëgg ko rek mu daal di lay doy àdduna doylu moo fi am mais doyal amu fi moo tax li nga am soo ko bëggee rek day tax nga defar ko te boo ko defaree mu daal di lay doy loolu tax mu ne dund gi du la jox lépp li nga bëgg waaye doylu moom dana tax lépp loo am bëgg ko gis nga ko fee dana la du def lépp loo bëgg am ko fii mën na la nag day def lépp loo am bëgg ko su ko defee loolu day tax nga mën koo jariñoo ci na mu gën a rafete te nit lum mu mën a am ci àdduna lu mu rëy rëy su ko bëggul moom ci boppam moom mi ko am keneen ko ko mën a bëggalit du am njariñ moom mi ko moom moo koy bëgg defar ko nit ñi door ko koo mën a bëggale waaye itam lum am lum tuut tuut su dee bëgg na ko rek mu jariñ ko njariñ lu foogul woon ne mën na faa àgg moo tax doomu aadama day nangu dogalu borom bi ci boppam lim ko sédd mu nangu ne lii mooy wàllam bu dee dafa jàpp ne tuuti na mu defar ko bëgg ko te doyloo ko su fekkee ne dafa gis ne bari na mu defar ko te jëmale ko fa mu war a jëm dimbale ci ñam ci war a dimbali loolu la mu xikim binduloon tey bu nu fàtte nag benn yoon di wax allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullah